Jom Center nekk kuréel goo xamante ni day xalaat di joxe taxawaayam ci dëkk bi nu muy doxee ci wàllum démocratie ñoom nag génne nañu benn téere boo xamante ni nu seen réew mi moom lañ ci def mu toll ci 48 pages yoo xamante ni ci juróom benn pàcc ci lañ ko xaaj sujet yuñ ci wax nag wax nañ ci Afrique ak dëkku tugal yi terrorisme ci Sahel document bi daal daanaka ñëwaat na ci lépp nga xamante ni waa Chine Afrique ngir lu maama lu nga xamante ni tamit moo xew Burkina Faso ak Mali te kenn waxu ci Afrikajom Center ñëw tamit ci wàllu koom-koom ci biir continent africain nan lañu war a def ba soppi loolu lépp surtout ci mbirum franc CFA wax na tamit ci koom-koomu Sénégal nu mu tëddee rapport yi nga xamante ni dañu koy génnee wante du mujj fenn ñoom seetlu nañ ni ñaxtu yu bare ñu ngi yokk dëkk bi mu ngi ci njàqare loolu tax ñoom ñu ni loolu moo tax ndaw yu bëri génn di ñaxtu ñoom ñu ni parrainage bi état bi respecté wu ko lii di question troisième mandat tamit naka noonu loolu nekk échec total ñoom daal nu ñu gisee mbir mi moo di dara doxul ci wàllum doxalinu réew mi yokk ci ni depuis atum 2021 jàpp nañu lu toll ci 600 personnes ba noppi fukk ak ñetti nit ñàkk nañ seen bakkana ci seen téere bi tamit ne lii di liberté d'expression wala liberté de manifestation Sénégal wàññeeku na fi bu baax a baax ni am ñaar fukk ak ñaari poñ yoo xamante ni dañ koy dig ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi benn bi leen ci gën a soxal mooy président Macky Sall ngir dalug réew mi jàmm réew mi ak kaaraangi réew mi mu bañ a def li nga xamante ni moo di troisième mandat présidentiel yu 2024 yi